بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وامه كل ما صدر مني من العيوب واحسمني من العود إلى سيء من المعاصي وتقبل توبتي بعروف تأسيع سعر رمضان تاب علي ذو الوجود والخدم وذو البقاء وتقبل الخدم تعاب علي ذو الوجود والخدم وذو البقاء وتقبل الخدم أسأله بحق وجهه الكريم ووجهه بي أنال سألت ذا الخلاف والخيام تقبل الصلاة وسيامي عبادتي لنا لنافهز الوحدة وخاد لي ما زيد من وعدا سكرت ذا القدرة والإرادة والهلم والآيات إذ أرادا الذي سمو له والبصر كليتي إداية لا تعسر رفعني بذكر ذو الكلام بلا مهادات ولا ملام رد لخيري خادر مريد جملة ما يطلبه مريد مدد عالم وحي وسميع لي خادم ما يخبتني بالجمام دم بصير متكلم إلى في لحزبه عروفي بإلى الله لا إله غيره فمن خسده بالمنتقى نال الأمن نفاني الذي وجود والخدم لو بمصطفى وسايب الخدم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 bis bi nuy waajal nag ban bis la mooy bis boo nga xamante ni nii mooy bis bu rëy bu nu sëñ defal ñun waa Thiès muy bis boo xam ni bis bi fi Serigne Saliou Touré mu baax mi ñëwee woon fii ci Thiès ci ndigalal ñan kilifaam yu baax ya sangam ya yu tedd ya tàmbalee ko sëñ Abdou Lahad Mbacké waaye nag ak kan Serigne Saliou ak sëñ Abdou Khadir ak Cheikh Mamadou Mourtada ñu désigné ñu Serigne Saliou mu tedd mu baax mi andil ñu ko fii cees ni ko demal Thiès Saliou te ak waa Thiès ca yàlla ñu ko ci fàttaliku nag di ko ci ñaanal waaye nag di ci ñaanal jàmbaar yi yoonu murit yépp muy Cheikh mu Mountakha di ñaan Mbàkke yàlla na fi yàgg lool tiwér ci ndigalam la ñu yeesalaati bis bii di ko ci fàttalikuwaat ñëw Serigne Saliou Touré fii Thiès ñu ànd koog taamu baax mi nag muy Serigne Cheikh Amadou Bamba Touré mu ànd ak i rakab ak mboolem taalibe bi yëpp ànd koog ñoom nu koy ziar ci ndigalam njaboot képp takkutoo nag taxaw di ko fàttaliku ci bis bii nga xamante ni moom lañ jëm waaye nag ñu teew ci jataay bi ak ñu tedd ñoo xamante ni fu sëñ seex gestu gis leen ndax ñoom la woon ak kan Serigne Saliou Touré tedd ma ba liggéey bi tabbee ci loxoom ba tey ñu ànd ko ak moom sëñ Ibrahima Mbacke di kenn ci Serigne mu ngi nii ci jataay bi nga xam ne sëñ bee sàkk woon moom ci moom koor gu jot mu ñëw di ko wéttali di ak moom weeru koor ba mu jeex ñu ngi leen di xamal ni moom ci jataay bi ànd koog noonu ñu leen di xamal ni tamit sëñ Abdou Lahad Touré di kër gi di jëwriñu seen Cheikh moom itam mu ngi fii ànd ak njaboot gi ak taalibe bi yëpp liggéey bi ñooy sëñ Abo Mbacke moom itam moom sëñ Saliou Touré mu ngi nii toog ànd ak ñun jataay bi waaye tamit sëriñ Cheikh Dieng imam mi nga xam ni moom lañ fi sëñ bi teg muy jiite juróomi waxtu yi ñu ngi koy ziar bu baax sëriñ Cheikh moom itam mu ngi fii ci jataay bi ñu waxitam sëriñ Serigne Ndiaga Pouy mu ngi nii toog di jëwrin di kenn ci sëriñ bi am taxawaay lool ñuy ñaan suñu borom dolli aw fanam moom itam wéral ko te mu ànd ak liggéey bi njabootu sëriñ bi ñuy ziyaare bu baax tam Serigne Aly Nguer moom itam di jàmbaar ànd njaboot gi takkatoog ñoom nekk ci biir liggéey bi moom itam mu ngi ci biir jataay bi ñi leen di wax sëriñ itam Serigne Yoro di kenn ci liggéey bi ci kër gi ci jabootu kër gi am ci taxawaay lool moom itam mu ngi ci jataay bi ñuy wax itam sëñ Assane Gadiaga jàmbaari Serigne Saliou Touré ji moom itam moo ngi tuy toog ak si na ci jataay bi ànd ko jaboot gi ci liggéey bi ñu wax itam Serigne Ali Thiam jàmbaar jëwriñ la ci kër gi moom itam mu ngi nuy toog ànd ak ñun liggéey bi ak Serigne Cheikh Gueye moom itam di kenn di bilaalu jàkka ji di jàmbaar yor fi wàllu mbooleem am paj nag ci donga yi moom itam mu ngi nii ci jataay bi ànd kook ñun kon daal bis bii ñu jëm day bis boo xamante ne waa Thiès amuñu lu dul moom muy bis bu mag muy bisu fàttaliku ñëw Serigne Saliou Touré fii ci Thiès. nag ñu jël kaddu gi yëkkati ko jox ko jëwriñ Serigne Mokhtar puy sëñ Ndiaga mu kaddu gi bis mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Ahmad Bamba Touré ak ñi fi ñëpp. di wax ni man fi ma jëmal sama kàddu moo di ñetti jotaay yi nga xam ni bi joti joxe na ci ndigal ci bis bi jotaay bu njëkk bi bisu alxames la ci 1985 ñan la ko jox xidmatu xadim ci njiitu kan sëñ jak Gajaga ak Soxna Awa Guèye ci yoor yoor ñu ñëw egsi ni ko ñun de dañoo bëgg xam sëriñ bi bis bi nga gane àdduna ñu màggal ko sëriñ bi leen loolu de baax na lool waaye am na lu ma ko gënal de bis bi nga xam ni ci laa njëkk a ci jàkk ji ci laa njëkk a ñëwee ci cees ngir maanaam jiite taalibe yi mu tolloog juróom-ñeenti fan ci weeru koor sëñ bi jox naa ne bis bi lépp a ngi ci nag ne bis bi lépp a ngi ci njariñee ngi ci barkee ngi ci xéewal a ngi ci ngërëm a ngi ci tey jii képp ku defaroo ci cees ki taalibe yi xamal ne bis boobu ca nga tàmbalee defaru ndax bi ñu ñëwagul kat dañaan naan région région bi nga xam ne moo raw ci senegal ci wàllu taalibe Kaolack la woon waaye bi sëñ Saliou Touré ñëwee cala la Thiès raw ñëpp te kenn dabu ko ba léegi loolu ci liggéey boobu ca la amee ñu toog ab sëñ bi ni ko dinaa ko dinaa ko ànd ak yéen te neen ko def ci jàkk ji ñu def ko ay at ñu def ko ay at ba yàlla def mbir mi ni teg sëñ Cheikh Ndiaye si nit bu jaxaw ànd ak Ndiaga Sall sàkk ko yëgoo dañ ciit ak man ñëw ci sëriñ bi mu sakk ci ndigal sëñ bi ne ko jox naa ci ndigal te dinaa ko ànd ak yow te dinaa la ci jàppale ba léegi bis baa ngi ngi wii musul musul musul musul musul musul taxo ben yoon te bobu ak legui 85 ak legui sokay xol nek na ñeul fukki at ci manqué benn bis baa dox bis baa wey ñu tok ba ci yag yalla def na Cheikh ndjay ba legui mi ngi mi ngi mi bis bi keroog ak lama yoni ci señ bi ni ma waxa señ bi kat manam gant dama am gant ndax bët yi dañoo muuru te jamono ye rek yàlla def na mu am accident tànk bi damm mu ne ma waxal sëñ bi maa ngi si yaay saraat ndigal wi waat fas yéene ko wéel na mu doon ma ne ko sëñ bi moom lépp lu waajurum defoon da ko yokk waaye du lu muy wàññi xamal dina ko dinaa ko ko jotal te dina ci ànd ak yow incha allahu rabbi yàlla def na sëriñ bi di dem ci bis boobu at saa su ne waxtu wu nekk mu fay dem ñu toog ab diir Ibrahima Sow ñëw sàkku ndig bis ndigal ci bis bii sëñ bi jox ko ci ndigal ñu koy màggale fee ca randu leen ba mujj gi bis bi ñu toxal ko fi indi ko fii ba tey jii mooy bis bi te fi mu toll nii lépp nekk loxo siñ Sall Mbène yàlla na yàgg sëñ Sall ñu ngi ci sant bu baax ndax daa am loo xam ne kat boo ko téyee ñëpp nga ko loo téyal ñëpp nag ànd ko ñi nga ko war a àndal ñun ñaan képp lañ ci am ak ñaan yàlla yàlla yàlla na yàlla yàgg te yàlla ngëneel yëg njëriñ la lépp ñu bokk ñu bokk ak ñëpp Serigne Cheikh man naa ngi wàcc sama kàddu fii di wax ni njëriñu bis bi ak ngëneelu bis daal dina xam ne kenn ku defar ku nekk ñëw Serigne Saliou Touré ci nga defaroo lu waaye am ci taalibe ak loo nawe du ndey du bàyyi kala ko tax nga am ko moo di Serigne Saliou Touré bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi asalaamaaleykum wa rahmatullahi fi ñuy tàmbalee kàddu gi mooy ndokkeel jullit Sénégal yëpp awte ni njaboot Serigne Touba ci weeru tedd wi nga xam ne tey mooy bis bu njëkk ci weer wi di weeru alxuraan di weeru Serigne Touba di weer woo xam ne bërëb bi am na ci cër bu rëy rëy nga xam ngeen ne fukki bi ñu fi def mën naa ne lii daje fii ci mbooloo amul fenn fu muy daje ci biir Sénégal loolu nag Serigne Saliou Touré ju ñu ne ko fii jotaay waxtaanee na loolu bu amee du moom du bàyyam du ndayam waaye nangu ngi Serigne Touba nangu fulk bi day fësal ñu amoon tawfeex nag nag daaw daje woon fi ak njaboot gi taalibe yi ak waa jumaa ji ak waa jàkka ji ak murid Thiès fas yéene woo àdduna rawatina woo yëpp woo taalibi Serigne Touba yëpp woo soppi Serigne Saliou Touré yëpp ci bis bu tedd bi nga xam ne mooy fàttaliku bis bi mu fi tàbbi fii ci Thiès njabootu Serigne Touba yabaloon ko fii ngir mu ñëw taxawu taalibe yi ngir mu ñëw àggale taalibe yi waaye ngir mu ñëw samp fi yoonu murit wala sampal dëgëral fi yoonu murit wax naa ko rek taamu tedd bi Cheikh Bamba Touré ne ko bi mu fi ñëw yombul woon ndax cees boo génnee Medina Baye ca Kaolack génne tuuba mën naa ne capitale religieuse yëpp fi la ne Thiès kon nag indi fi ab ndongo daara ngir mu taxal fi Sëriñ diisoon na loolu waaye xam li tax ñu indi ko fi ak barke bi ko topp mooy doomi Sëriñ Touba ko fi yebal te bu ko kilifa yi tànnee dañ ko yebal ci kilifa yëpp ñu ñaanal ko ba du jël mu fi ñëw loolu moo tax tey jii mu am fi ndam lu mu fi am kon nag loolu sant yàlla ñun nag yàlla defaloon ñu ñu am tawfiix ci moom euh, ñu bëggaloon ñu boppam ginnaaw ñun bi ñu ko tànnalee suñu bopp def ko kilifa def ko soppe def ko bàyyi def ko lépp def ko royukaay moom am cër bu sori bu ñu joxoon ci moom ci wàllu cofeel ci wàllu jàpp ci wàllu jëflante waaye ci wàllu aar ak kiiraay loolu nag lu ñuy wax ci ay rajo euh, tënk gi rek mooy defoon nañ njaboot te daanaa wax ak ñun ci xóot a xóot te am na fu ñu féete woon foo xam ñu yëg ko suñu bopp te xam nañ ko wax naa keroog Cheikh Bamba ne ko ñun bëri na sax lu ñuy lu ñuy góorgóorlu ci yoonu murit ak di ci ma ne suñu jom ba mu jeex ci moom lañ ko royee ndax moom daraan dimbalee ba su amul lu mu joxe sax day leb dimbalee xam loolu dafa la mën a yem <laughs> kon nag ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal bu baax te te rafet nañ si lépp ndax ndax moom jëfam lépp yiw la jëfam lépp lu baax la jëfam lépp sant yàlla la te yàlla moo ne ne ay laa si rënakum weeru koor gi daana ci def lu yéeme loo xam ni dama ko mayoon ci boppam ndax dañu mën fu ñu wooree ba am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent tànnal ku la neex ci doomi soxna yi ak kilifa diine ci région bi ngeen ànd ñoom invité la loolu su ma jubul def nañu fukki at ci teewaayu sëñ Mbamba Touré ak mboole seen mbokk yi nga xam ñoo ko daan fekke at mu jot sëñ Souleymane Seck bu cana ba ñëw sëñ Madika Seck Alaji Disa Gay sëñ Khalifa Kéré sëñ Chane na Mbaru daana ci ñëw ak ñu bëri te man dani ma woon ku fi ñëw daal yow yaa ko teg sa loxo yaa koy tànn indi ko bu ñëwee loolu nag ci bu rëy rëy la woon kon daal ñu ngi ñaan taalibe Serigne Touba yëpp bis bi ñu xam ne du bisu njaboot Serigne Tall Saliou Touré waaye bisu Sénégal la bisu yoonu murid la waaye bisu fàttaliku jàmbaaru islam la bisu fàttaliku nit ku baax la waaye bisu sargal nit ku baax la waaye bisu jàjjiwaat taalibe yi ngir ñu gën a góorgóorlu ci bennoo dimbalante yërëmante waaye bisu Cheikh Mouhamadou Mountakha la ndax daaw jéeg bi nemee Serigne Mountakha maa nag yéen di ko jébbal liggéey barkeelu njaboot Serigne Saliou Touré ci liggéeyu jumaa ji lam leen wax mooy fii ma toog de moom ñu ngi ci ja te booba léegi mën na ñeen fukki at kon loolu wane na digganteem ak sëñ Saliou Touré Cheikh Mouhamadoul Bachir mi nga xam ni bëri moom euh, bëri na yu may ne sax du lu ñu wax ci rajo ci sëñ Saliou Touré ak jàpp gi moom rek sëñ Bass nekkoon ci région bi am fu mu dalloo keroog bi ñëwee fekk na sëñ bi sa toog na ñaari at yoo xam ne daana man mi di wax ak yéen sax may sopp sopp su ma ko nuyee du ma ah, sama Basiru Mbàkke xarit bi <laughs> waaw nag keroog nag mu doon jotaay bu yéeme yéeme waaye loolu yëpp day wane ne rek euh, cërub yàlla moom du ko sëñ bas ne ñaanal ma ren ko sëñ Tuubaa ñaanal ba pare li ci télévision lay waxee te mooy suñu mujjee gisee ak moom fii ci këram gi wala suñu mujjee saafante ak moom ci zaahir kon nag ñu ngi ñaan waa Thiès yëpp ñëw ci bis bi ku ci mën a jàpp nga jàpp ci alal ku ci mën a jàpp ci alal nga jàpp ci jëmm jànkat yi xasida yi ñëw teew ci ndax moom ko bëggoon xasida yi rek ko daan sonn ci xasida yi ahlul yëpp teew ci waaye da ci wokk diine yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi sëriñ Mountakha nuyu Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ni mooy xalifa mbooleem njabootu sëriñ Saliou Touré di ziar ak a nuyoo sëriñ Nassir Dieng mi fi xamante ni bii sëriñ bi moo ñu si joxoon ndigal ci 1985 jëm 86 booba it ñun ñu dëkk ak moom ci koñ bi daf ñoo taxawalal daayira ñu sos daayira mu tudde ñu daayira xidmatul xadim ñu ànd ak moom fii ci biir koñ bi di liggéey sëñ Tuubaa nekk ci gannaawam nekk ci keppaaram bi daayira bi dabee ñaari at ñu ne ñun dey war nañoo mën a def ci santu sëriñ Tuubaa fii ci biir koñ bi booba man mii maa jëwriñu daayira bi ñu ni nañ dem ci moom yëgal ko ko wax ko ko waaye ci biir loolu ñu xalaat ni nañu fexe ba waxtaan ak moom ba mu mën ñoo wax bis bi mu ganee àdduna ñu di ko màggal man leen loolu de dinaa ko mën a wax ak moom ndànk waaw bu defee ñu ñëw bu ñu ñëwee ma xamal ko dañoo bëgg a sant sëriñ bi fii waaye sabab bi de suñu mënoon a xam bés bi nga feeñ ci jamono ñu dugalaale ko ci di ko màggalaale bi ma koy wax boobu dafa toog ci kaw bi nii waaye bi ma ko waxee kàddu googu laatu mooy tontu daa waaj toog suuf fekk sama ma ci suuf daal ni ma loolu de baax na lool waaye su ma sañoon de ngeen màggalal ma juróom-ñeenti fan koor bi day dëppoog sama ñëw fii ci Thiès dëppoog bés bi ma njëkk a jullee ci jàkka ji daal ñu si jox ndigal loolu nag mi ñu ko jox 87. 87 lañ ko tàmbalee màggal fii ci jàkka ji euh, ba ay 92 daayira bi nit ñi nekk ay mag ñuy dem mu taxaw bi daayira bi taxawee am na ñu ko daan yëngu di ko def waaw waaye bi nga xamante ni bii nag Serigne Saliou Mbène mii bëgg naa delloo si bés bi ba mu wooyee laaj ma dama ko leeral waaye moom ba ma ko leeralee. na ko sëñ bi joxe woon ndigal rek noonee la ko defee ndax fii ñu koy defee sëñ bee ni ma dee leen ko defee fee ca jàkk bi waaw moom ci jox ndigal ni ma fan maa ni ko fii ci koñ bi mu ni ma déedéet dem leen ca jàkk ja defe ji ko ñu koy defe fii ci jàkk looloo waral moom mii bu mu ñëwee gëstu loolu ci man ma leeralal ko bés bi ak lépp ak li ci sëñ bi wax sëñ bi nag lam ca wax leer na dañu bés bi da ngeen ma ko màggal aaju ju ci waaye am na ma ko ci defal na na ko ci fas dana faj te it moo daan jël alalam di ko ci jiital waaw moo daan jël alalam di ko ci jiital daanaka loola ba moo ko bañ ñu koy jox boobu ay ndaw lañu waaye li ñu nekk ndekk ndaw jamono yooyu dañ daan boole gouverneur ñuy def CRD sax ci bés bi te daanaka booba benn baas doo nga lay doon waaw gouverneur dañ daan woolu laaj ñu lu ngeen bëgg ñu wax ko lépp mu nu sëñ Sall Touré de bésam ñu ko ca man danaa ko ci def ah ñu koy def nag ba bés bi yegg si waat fii ñuy ziar ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp fas yéene jëfe seen digal ci woote bi nga xam ni jaar nañ fi léegi woote ko fi ci bés bu tedd boobu nga xam ni ñun waa Thiès amuñu lu dul moom ndax li ñu xetali te àggale ñu fi ñu jàpp ni àgg nañ fa bës boobu moo ko waral loolee nag ñoo ngi jiital ci nuyoo boobu ak ziar boobu Cheikh mun Mountakha Mbacké mi nga xam ne tey jii moo toog jotaayu Serigne Touba ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi nekk ci ronam ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar te di ko ñaanal yàlla suñu borom gën ko fee yàggal dëgëral ko ba mu mottali ay naalam yi nga xam ni tey jii ñëpp naal na ko fi ci barke borom Tuubaa te mu ànd ceeg moom. woote boobu nag gannaaw ba nga xam ne dinañ Cheikh Mouhamadul Mountakha day mel ni yóbbaale na njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp waaye njaboot googu nag dafa am ñoo xam ni dafa am ñu leen fi nekkal fii si dëkk bi ñu ànd ak ñoom si bés boobu ñu nga xam ni moom la ñuy wooteel woote ngir di si fàttaliku suñu jàmbaar jooju di ko si ñaanal muy Cheikh Saliou Touré mu juróom-ñeenti fan yi nga xam ne moo nekk ci weeru koor dëppoog àllarba ñaar fukki fan ci weeru mars bi ñu nekk kon loolu nag ñu ngi ciy woo ñëpp di ci séentu seen i teewaay ngir ñu fàttaliku si jàmbaar jooju ñaanal ko suñu borom ñaanal ci lislaam ñaanal ci yoonu murid woote boobu nag ñu ngi ciy jiital waa ñi nga xam ne ñoo fi nekkal njabootu sëñ Modou Moustapha loolu ñu ngi leen ciy woo te ka nekk ca boobu di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké taxawaay mu rafet loolu si biir dëkk ci biir taalibe yi ñoo ngi koy woo ci woote woote boobu di ci woo Serigne Cheikh Sourang mi nga xam ne tey jii kër soxna Bintu Mbacke mi nga xam ne doomu Bintu Serigne Modou Moustapha la moom moo nekk ca kër googu ñu ngi koy woo ci woote boobu njaboot ñi nga xam ne ñoo fi nekkal Serigne Fallou sëriñ Fallou Mbacke loolu ñoo ngi leen di woo ci bés boobu kan say jiital nag mooy suñu Serigne si nga xam ne ñoo nekk fii di waa kër Serigne ji Baara Mbacke ñu koy wax Serigne Abdoul Fattah ak Serigne Modou Serigne Modou Mokhtar ñu ngi leen di woo ci bés boobu ndax bés boobu lu waaye defal Serigne Saliou Touré rek yoonu lislaam nga ko defal yoonu murit nga ko defal te ñoom ñoo fi taga toogee yoonu murit kon bés boobu ñu ngi leen koy fàttali xam nañ ne fàttewuñu ko sax di woo njabootu ñi nga xam ñoo sooy ci Serigne Bassirou njabootu Serigne Bassirou Mbacke ñi nga xam ñoo nekk ci biir dëkk bi ñoo ngi leen di ci bés boobu di si jiital Serigne Modou Cheikh Mbacke ñu ngi koy woo mu sëñ Modou mu sëñ Moustapha Bassirou ñoo ngi koy fàttali bés boobu nga xam ni bésam la di woo njaboot gi nga xam ni ñoo fi nekkal Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi Serigne Amsatou Mbacké mi nga xam ne nag moom kooku dañ cey taxaw ndax ñi nga xam ne moom taxawaay bi mu am ci taalibe yi am ko ci yoon wi waaye taxawaay bi nga xam ne am na si njabootu Serigne Saliou Touré kooku moom bés boobu moom bésam la ko du dañ ko ciy woo waaye bésam la jëbal laan nañ ko bésam boobu ndax moom taxawaayam am na solo lool te lu mu ci def lu nekk rek si ndigal la ko teg muy ndigalal kilifaam yu tedd yi nga xam ne ñoom la nekk si seen ron kon loolu bésam boobu ñu ngi ko ko ciy fàttali ñi nga xam ni tamit mooy taalibe yi nekk ci biir dëkk bi loole moom ñëpp kenn ku ne xam na la ciy wàllam dana ko ca def waaye njabootuk sëriñ Abdul Ahad sëriñ Abdul Xaadir nga xam ni euh, sëriñ Cheikh Mbacke moo nekk ca bopp ba waaye jëwriñam ju tedd jooju nga xam ne tey ji moo yor kàddu yoonu murit muy sëriñ Basiru moom sëriñ Abdul Xaadir moom bés boobu ñoo koy fàttali ndax bés boobu xam na ni bésam la ndax tawaay bi taxawaay bi nga xam ni am na ko ci biir yoon yi fu ci waay di yëngatoo fu nekk rek moom loolu wa wàlla ma nga ca ndax day mel ni moom nga koy yëngatul ndax taxawaay bi mu am ci yoon yi kon ñoo ngi ko koy ñoo ko koy fàttali bu baax a baax li nga xam ne mooy njaboot bi nga xam ne ñooy sey ci Serigne Saliou Mbacké kooku moom xam na ni Serigne Saliou Touré ak Serigne Saliou Mbacke ku ne xam na taxawaay boobu nga xam ni Serigne Saliou Touré am na ko ci njabootu Serigne Saliou Mbacke kon bés bi moom lu ci waay def lu nekk day mel ni ñoom la koy defal te Serigne Cheikh nekk sa bopp ak ñi nga xam ñoo ànd ñoo ànd ak moom ci ci liggéey boobee yëpp ñoo ngi leen cee woo waaye ñi leen nekkal ci biir dëkk bi nag muy Baye Mbaye Sall mi nga xam ne mi ngi nekk fii ci Cité Senghor muy jëwriñu Serigne Saliou bu nekk ci dëkk bi ñoo ngi ko koy fàttali ak ak Serigne Ngagne moom tamit ñu ko ci wax ak mboolem taalibe yi nekk seen ron di so di sosoo si soo si Serigne Saliou Mbacké te nekk ci biir dëkk bi ñoo ngi leen koy fàttali njabootuk Serigne Mouhamadou Mourtada bi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi waaye du jëwriñam bi muy Serigne Mamor Mbacké nga xam ne mooy mooy jëwriñu Serigne Moutada kooku ñu ngi koy fàttali bés bi waaye njabootam gi ko nekkal fii si dëkk bi nag nga xam ne seen taxawaay ñëpp dañ koo rafetlu muy Serigne Takko Mbacke ak Serigne Daouda Mbacke loolu moom lu ñuy def lu nekk nag yàgg nañ cee ànd ak kon ñoo leen koy fàttali bu baax te di leen sant di gërëm ci seen taxawaay bu baax a baax di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ji nekk ci biir dëkk bi nag loolu moom ku dee xam na ni Serigne Saliou Touré moom laxasaayam moom laxasaay Baye Fall la kon lépp lépp lu mu mës a def lu nekk nag njabootu euh, maam Cheikh Ibrahima Fall gi ànd nañ ci ak moom kon bu demee ba toll fii di ko fàttali ak di ko ñaanal kooku moom day mel ni bés bi dañ koy tegaat seen seen bés lay doon loolee nag ñu siy jiital sëñ Amdi Xadi Fall di ko ñaanal yàlla suñu borom yàlla ko suñu borom gën a dëgër te gën ko wéral te mottali ay ay ay ay yéeneem ku ne digganteem ak Serigne Saliou ku ne xamoon na ko moom tam ñu ngi koy fàttali bés bi am njaboot gi nga xam ñoo nekk ci suufam yëpp Serigne Cheikh Gounda Gounda Fall nga xam ni moom saa su nekk rek mi ngi daan nemmeeku Serigne Saliou Serigne Saliou te di ko nemmeeku seen diggante doon lu yàgg te rafet lool moom tamit bési bi bésam la ñoo ko koy fàttali bu baax a baax. njabootuk Serigne Cheikh Mouhamadou Cheikh Mandoumbe Mbacke ji nekk ci biir dëkk bi te jàmbaaraam ji nga xam ne moo fi nekk muy soxna maam Bousso Mbacke ku ne xam na taxawaayam ci liggéeyub Serigne Touba bi ku ne xam na taxawaayam ci taalibe dëkk bi waaye ku ne xam na taxawaayam ci kër Serigne moom ñoo ngi ko koy ñoo ngi ko koy fàttali bu baax a baax a baax. njabootu sëñ sëñ Ababacar Lo nga xam ne sëñ sëñ Amdi Moustapha Lo moo nekk sa bopp moom it ñu ngi koy fàttali bés bi sëriñ sëriñ Mor Ndiaye Dabaay njabootam gi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo tam te seen rafet lool ka ca nekk ca bopp di sëriñ Abdoul Khader Ndiaye moom it ñu ngi koy fàttali bés bi bu baax a baax sëriñ Basirou Sarr moom it ñu ngi njabootam gi nga xam ne ñoo ko fi nekkal fii muy sëriñ Sang Sarr moom it taxawaayam rafet lool si biir taalibe yi ak si doxalinu taalibe yi moom it ñu ngi koy fàttali bés bi Euh, sëriñ Abdoulaye Yakhine Aidara Diop moom ku ne xam na taxawaay bi nga xam ne am na ko si biir dëkk bi am na ko ci biir yoon wi amoon na ko ci biir yoon wi njabootam gi nga xam ne ñoo fi nekk tamit gën a feddali loolu lool it ñu ngi leen di fàttali bés bi ka nekk sa bopp di xalifaam soxna euh, Saybata Aidara moom it ñu koy fàttali bés bi ndax bés bi bésama euh, te xam na digganteem ak seen Saliou te ni mu demoon ak rakkam yu tedd jooju nga xam ne moo nekk ci ci ci wetam di soxna Salman Aidara moom it ñu ngi koy fàttali bés bi bu baax bu ñëwee ci sëriñ baabakan Ngom njabootu sëriñ Babacar Ngom gi xam ñoo nekk si dëkk bi te loolu sëriñ Cheikh sa bopp loolu ñoo ko koy fàttali mbokk ñi xam ne ñoo aju ci moom ñëpp waaye nag jàmbaaram ji nga xam ne moom jëwriñam la muy sëriñ Modou Ngom ku ne xamoon digganteem ak sëriñ Saliou Touré ni mu demee moom it bu ko jaaralee sëñ Modou rek sëñ Cheikh dana sa jot kon nag sëñ Modou euh, woote baa ngi noonu jëm ci euh, ci bés boobu noonu sëriñ sëriñ Amdi sëriñ Amdi Amdi Touba Ndiaye ku ne xam na taxawaayam ci biir taalibe gi ku ne xam na taxawaayam si yoonu murit ku ne xam ne taxawaay si kër Serigne Saliou Touré ndax kër Serigne Saliou bu ñu ko waxee mooy liggéey bi yoonu murit rek ndax Serigne Saliou moom ab liggéey la yoroon kon liggéey bi képp ko ànd ak moom ci loolu rek la muy jëf doon nga ca dara kon Serigne Amdi Touba Ndiaye ñu ngi koy fàttali bés bi bu baax a baax Serigne Khadim Lo Gaydal nga xam ne ku ne xam ne moom it ni mu mele woon si ni mu meloon si Serigne Saliou ndax dafa ñëwoon ni ko sama waajur la ndax diggante Serigne Saliou Touré ak waajuram Serigne Moustapha Lo kon sëñ xaadim bu ñëwee tey ji am na mu jëflanteeg njabootu sëñ Saliou Touré taalibe yi xam loolu di ko rafetlu kon lépp lu ñu nekkul rek ñoo see àndandoo di ci nekk kon moom it bi ñu ngi ko koy fàttali ko di ko ko ci woo Kan Nasru moom it noonu ma wax ci sëñ xaadim rek noonu la demee moom it daa jëf daa jëloon sëñ Saliou Touré def ko muy jëwriñam waaye muy waajuram lépp lu mu laa def ne daan si ñëw di ci nemmi ko moom kon sëñ xaadim sëñ Assane ñu ngi lay fàttali bés bi bu baax a baax sëñ bu ñëwee nekk yi nga xam ne mooy trox yi nekk ci biir dëkk bi ku ne xam na ni kenn ku si ne am na ko fi teewal loolee nag buñ ko jëlee si suñu mbokk ay tijaani yetu yi sëñ Babacar Sy Mansour nekk ca bopp ba ak mbooleem ñi nga xam ñoo ànd moom ca liggéey ba kooku day mel ni fi ñu ko tuddee rek tudd nañ mbooleem fi nekk ñi nga xam ne ñoom la ñoom la boot ñu ngi leen di woo ci bés bi waaye di si jiital nag sëñ El Hadj sa gay El Hadj Idrissa Gaye ku ne xam na taxawaay ci diggante ak njabootu sëñ Saliou Touré waaye digganteem ak sëñ Cheikh Touré mi Euh, kon ne xam na na mu demee kon bés bi moom bésam na ñoo ko ciy woo bu baax a baax di woo Cheikh Ahmed Tidiane jiite ba sunu bàyyi Alaaji Ousseynou jiite moom it xam nañ taxawaay bi nga xam ni am na ko ci diine lislaam waaye xam nañ taxawaay nga xam ni am na ko fii ci biir dëkk bi ci biir turoox yi nga xam ne rafetal gi muy rafetal ak waaye taxawaay am na ko ci sëñ Saliou Touré kon ñoo ngi ko koy fàttali bu baax a baax di sëriñ Sidi Mokhtar Kounta moom it ñu ngi koy fàttali bés bi bu baax a baax ndax bés bi bësam la ma dikk Seck moom it bés bi xam na ni bésam la suñu mbokk Ceneba yi moom ñu ngi ko fàttali bu jaaree ci moom rek dana dem ci ñi des ñëpp kon ñu ngi ko koy fàttali Cheikh Ahmad Saloum Dieng Nasru Nasru Diin ku ne xam ne taxawaay moom tamit ñu ngi koy fàttali bés bi euh, bésam bésam la sëriñ bu ñëwee ci su suñu maam kër maam El Hadj Amadou Bara Ndiéguène sëñ Muniru Njigéen nekk ca bopp ba kooku moom njabootam mooy njabootuk sëriñ Saluté njabootu sëriñ Saluté mooy ak njabootam kon moom buñ ko jaaralee ci moom rek njaboot gi yëpp dana ñoo koy fàttali bés bi ak njaboot gi nga xam ñoo àndi ñoo topp ci moom Xalifa Kebe nga xam ne mook sëriñ Saluté duñu woon ñaar kenn lañu woon moom it ñu ngi koy fàttali bés bi ak njabootam gi nga xam ñoo nekk ci ak ronam yëpp ak sëriñ Tidiane Ndaw moom it ñu ngi koy fàttali bés bi sëriñ Asan Laay nga xam ne moom suñu mbokk laa moom moo leen fi nekkal moom it ñu ngi koy fàttali bés bi Serigne Maodo Malick Mbaye moom it koy fàttali bés bi Cheikh Naama Naama Haydara nga xam ne moom suñu mbokku euh, chérif yi ñoom bés bi seen bés la ñoo ngi leen di fàttali bés bi bu baax bu ñu jógee si loolu nga xam ne mooy kilifa diine yooyu tey jii waras naa mën a dugg ci nga xam ne ñooy autorité étatique yi nga xam ne tey jii ñoo nekk ci biir dëkk bi te loolu euh, diine ak jamono la ñu wax ki nek ci bobu di monsieur le gouverneur ñoo ngi ko koy fat ñong ko koy fàttali bés bu baax ak taxaway yi nga xamni mom la lacc ci bëss bi yëpp ñong ko koy gis te ko ci xaar diko ci lacc diko ci sentu bu baaxa baax ak ki nga xamni moy préfet du département de la ville de Thiès mom tamit ñong ko koy ñoo ngi fàttali bëss bi monsieur le maire de la ville de Thiès mom tamit ñu ngi koy fàttali bëss bi ndax xamna ni bëss bi bëssal la ndax taxaway yi nga xam da na ko ci am monsieur le maire de la ville de Thiès Est commune de Thiès Est mom tamit ñu ngi koy fàttali bëss bi euh taxaway yi mu ci amone monsieur le maire de la commune de Thiès Nord. moom it ñu ngi koy fàttali bés bi ak taxawaay yi nga xam ne amoon na ko ci ak monsieur le maire de la commune de Thiès euh, sud moom tamit ñu koy fàttali bés US Thiès US moom tamit ñu ngi koy fàttali bés bi ndax xam na ni yi nga xam ni amoon na ko ci bu loolu jàllee nag xam nga ni cees moom li ko ëmb li mu ëmb dafa bari ndax tund yi ko wër yëpp fi mu toll nii dañ daa si Thiès liggéey bu ma saa am leen dañ ko daa ñëw daan ko àndandoo ñun kon loolu dafay jaadu ñu woo leen si bés bi ñu àndandoo ak ñoom muy waa Xabaan ñu ngi leen ci woo si bés bi waa Got ku ne xam na got diggante got ak xabaar ak ak sëñ ñu ngi leen di woo si bés bi waa Nooto Jobaas ñu ngi leen di woo ci bés bi waa kër Ibra Fall ñu ngi leen di woo si bés bi waa kër waa Tawa Fall ñu ngi leen di woo si bés waa kër Ibra Mati ñu ngi leen di woo ci bés bi waa kër Daouda Cissé ñu ngi leen di woo ci bés bi waa kër Madaro bés bi tamit seen bës la ñu ngi leen ci woo waa Coxal bés bi seen bés la ku ne xam na foofu ni ñu demee woon ak sëñ Saliou ngi leen di woo ci bés bi waa kër Baara Kayre ñu ngi leen di woo ci bés bi waa kër Jëmb Ndiaye ñu ngi leen di woo ci bés bi waa kër Thiem Souare ku ne xam ne ni demek seen salito ñu ngi leen di woo ci bés bi waa waa Ndakaar Mbay ñu ngi leen di woo ci bés bi waa Paris Dieye ñu ngi leen di woo ci bés bi waa taset tund taset yëpp ñu ngi leen di woo ci bés bi suñu mbokk waa paalam paalami ñu ngi leen di woo ci bës bi waa kër Mbay Dieye it ñu ngi leen di woo ci bés bi waa Ndooyeen it ñu ngi leen di woo ci bés bi waa kër Lay jawit it ñu ngi leen di woo ci bés bi waa tu waa tu suñu mbokk waa kër Touba waa Touba Péku ki ku ne xam ne seen taxawaay ci ci liggéey Serigne Touba bi nekk ci biir dëkk bi ñu ngi leen di wo ci bés bi waa waa kër Mor Ndiaye it ñu ngi leen di wo ci bés bi waa kër Demba Anta it ñu ngi leen di wo ci bés bi waa waa kër waa kër waa Madaro waa kër Madaro ñu ngi leen di wo ci bés bi waa Ndiréen it ñu ngi leen di wo ci bés bi waa Touba Gueye ñu ngi leen di wo ci bés bi waa Taïba Mbaye ñu ngi leen di wo ci bés bi waa Taïba Ndiaye ñu ngi leen di woo ci bés bi waa Ndoo Moor it ngi leen di woo ci bés bi waa Ngomeen ñi ngi leen di woo ci bés bi waa Daaru Xuddos ñi ngi leen di woo ci bés bi waa Njaxate Njaasaan ñi ngi leen di woo ci bés bi waa Mbengeen ñi ngi leen di woo ci bés bi waa Ndiireen waa waa kër Chérif Lo ñi ngi leen di woo ci bés bi waa waa Tawafal waa kër Tawafal ñi ngi leen di woo ci bés bi waa Njaañ waa Njaañ ñi ngi leen di woo ci bés bi waa Mbooro ñi ngi leen di woo ci bés bi waa waa Tund Jandeen yëpp yi tamit bàyyi ñu ci kenn ñi ngi leen di woo ci bés bi ñu xam daal bés bi moom mi ngi noonu mënees na leen ko fàttaliwaat muy àllarba yi nga xam ne mooy tolloog ñaar fukki fan ci weeru mars bi ñu nekk nii incha allah ñu fas yéene ko àndandoog mbooleem taalibe yi ak mbooleem jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ak li yëpp di yàlla lépp luñ ci luñ ci luñ ci ñaan rek yàlla na ko sa borom wasaare ci mbooleem jullit yëpp rawatina mboole mbokki taalibe yëpp waaye rawatina jàmbaari Serigne Touba jooju nga xam ni tey jii buñ ko dee woote liggéey a tax taxawaayam moo tax jëfam moo tax na nañu ko yàlla fayal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon di sant suñu borom bu baax a baax ni ko mbokki taalibe waxee rek bis bi mi ngi noonu di juróom-ñeenti fan ci weeru koor war a dajeeg le 20 mars 2024 di bis bi nga xamante ne bi mooy bisub Serigne Saliou Touré di bis bi Serigne Saliou njëkkee julli fii ci jàkkee murit ñëw fii ci Thiès bis boobu nag ni ñu ko waxee nañ ko daan defee rek lañ ko fas yéenee defee incha allahu mooy bu ñu xëyee ci suba gi 9h noonu lay wéyee ba keroog bët set ci alxamis ja waaye bu ñu xëyee 9h dañuy boole njàngum alxuraan ak njàngum xasida maanaam wàllu durus ci diggante daara alxuraan yi nga nekk ci yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp ànd kook daara ji bu ñu defee loolu ba noppi 10 heures ñu def li nga xam ne mooy mise en place foofu ci mise en place bi ci la ñuy defee cérémonie officielle bi bu ñu defee cérémonie officielle euh, ba noppi tisbaar dinañu julli bu ñu demee ba tàkkusaan di 17h30 ñu jàng kuréel gi nga xam ni mooy kuréelu jeysun di ñetti téeméer ak fukk ak ñett yi nga xamante ne bi ñoo koy jàng bu ñu fa jógee 18h30 Serigne Ibrahima Gueye fulkul masoon ñëw daal di jàng fulk bi ni mu ko daan jànge su ko jàngee ba noppi 19 heures ñu ndogu bu ñu ndogoo ba noppi nag julli timis diggante boobu ñu nekk ci wàcc ak dalal yenn gan yi bu ñu jullee gee ba noppi nag naafile dellu si ci barab bi ci wàllum njàngu xaside yi ak kuréel zikrullah gi nga xamante ne bii mooy dem ba fajar zikrullah googu nag Serigne Cheikh ndoy mi nga xamante ne bii mooy jàmbaaru jàmbaari baatub laa ilaha illallah moo koy war a jiite ba keroog fajar kon nag ñu ngi ciy woo mbokki taal bi yëpp rawatina jànkati xaside yi jànkatu xasida yi nag tey jii su ma koy wax du ma tudd wenn tur waaye bu ñu ne jànkatu xasida yi rek képp koo xamante ne bi jànkatu xasida yi rek yaa ngi ci biir moo xam kuréer la moo xam rajas la moo xam kuy durus la ñoom ñëpp ñu ngi leen woo ci bis bi ndax benn jëwriñ rek la ñu am benn jëwriñ rek la am muy Serigne Saliou Touré Serigne Saliou Touré ne woon nag boole na xasida boole Zikrula kon mboolem fu kuréeru Zikrula nekk mboolem fu kuréeru xasida nekk ñoom ñëpp woo nañ leen ci bis bi fàtteewuñu kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu xam nga nuyu mbokku jullit yëpp am nañu mbokku taalib bi rawatina na ñi nga xam ne ni ñu dëkkee région de Thiès di jida ci nuyu bi ki nga xam ne tey ma fi nekk Serigne Touba ci kaw suuf Serigne Mouhamadou Mountakha Al Bachir di ko nuyu di ko ziyaare di ko ñaanal suñu borom yokk aw fanam yokk ak wéram may ko ndam liggéey bi nga xam ne mu liggéeyal maam ju tedd ji si Ahmadu Bamba di fàttali loo ya loo yaakaar ne fàttewuñ ko am mbir mu nekk it xeexu bu nekkee balaa xewit ay jëf dina ko jiitu waaye mu ne ko jëf yi ñu xam ne ñu ngi ko jëboo ba léegi war nañoo xamal ni fàttewuñu li ñu dëgmal muy yom ñetti fan ci weeru koor muslim bi ñëwee ñëw Cees nekk ak njalbeenu jiiteem ci jàkkee murit bii mu fas ko màggal dundal ko waaye it yi nga xam ne mooy mooy bu ren bi ñu nekk boo xam ne dañ ko dañ ko ciy fàttali bu baax a baax a baax mu ànd ak yar ak teggin ak fàttaliku ko nga xam si ni jëm jëm ju tedd jooju nit yàlla bu bu bu bu mag a mag a mag a mag di di mbirum Sëriñ Tuuba ñu mhm. maasee waajal bis bi di ca woo ñëpp nag bàyyi wuñ kenn képp xam daal yaa ngi gis jotaay bii ñu ngi ci woo ñëpp ku ne ci képp fu waay nekk rek biir réew mi mën na ñëw am mooy benn tiiq wala gàllankoor bu la mën a tee day ñëw ñu ngi sàkku sa rawti kilifa kilifi nga xamni ne nii ni ci dëkk bi xamna ni mboolem kilifi nek nekk ci dëkk bàyyiwuñ kenn kër diini yeeg kër dama soxni bay bàyyiwuñ kenn wala mo ci sama sama kaddu don ab soñi bo xamni ban bis bi na mboolem koo ya ne aju bi waye rawatina moom mi xam ci ni moy borom bis bi moy serigne bi ndax do anou bu nek man nga ko yene defal dara ñu wa man dama la bëgg liggéeyal dama la bëgg a li waye waaye ki sàkkoon jëfal ma nangam loola bëgg-bëggam la ni ko ñep waxe nit ay nit dem nañ fa sakku ci mom ay bis yo xamni ne nii jëm ci jëmam ji mu gàntane loole ni len bis bi la bëgg su mënta ñak moo doon bis bi kon moom moko bëggal bopam moko sakal bopam kon lo ñu ci woy ñep di ci di ci di ci di ci sàkku teewaay ñëpp jërë ngeen jëf wa kay mbokki taalibe yi bis baangi nonu mo ngi nonu àllarba balay doon di ñaar fukki fan ci wéru mars ñu fassiyene ko amale fi ci pakku bu tedd bi di pakku sëñ Touba nam daan amé rek lañ ko fassiyene taxawé nak commune pak bi xam ko ci alcorane ak qasayid ak zikrullah ak njàngalem sëriñ bi ku ko xam-xam pàkk bii baaxoo na ko saa su nekk dañ koy feddali rek kon bis baa ngi noonu nag ni ko sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Touré waxee mook njabootu kër gi ak mboolem rakkam yi ak mboolem taalibe yi noonu rek lañ ko fas yéenee amale waaye nag bis boobu mooy bisu ñëpp nag kenn mënu cee wute kenn munu cee mooy ndax bis bi la fi sëriñ bi agsi woon tekk fi ëmbam bu tedd boobu ëmbam boobu nga xamante ne ñaay la képp koo xamante ne yàlla sédd na la ci xam nga ni sëñ bi seet yàlla seet na la ci kon bis baa ngi noonu yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm fekk ko jàmm ba weesu ko ba teewewaat ko ay ati ati at te ko njabootu sëñ bi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf gàcce yàlla na yàlla yokku say maqaama bi jaayi man sumaatawal xadiima amin